maa ngi dalal oustaz Moustapha Cissé ñu fas yéene waxtaane ki nga xam ni mooy sangu àddina ak alaaxira di sayduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam ma bàyyi oustaz Moustapha Cissé mu nuyoog téléspectateur yu télévision Futurs Médias. alhamdulilahi xaqa yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa salla allahu wa sallama ala rasulihi alkarimi alladi qaala man salla alayya salaatan waxida salla allahu alayhi ashra man salla alayya ashra salla allahu alayhi mi'a man salla alayya mi'a salla allahu alayhi alf man salla alayya alfu zaaxamat katifuhu katifi yowma alqiyaama wa ala alihi xaqa qadarihi wa miqdaarihi alazim wa baadu ayuha almushaahiduuna alkiram uxayi kullan bismihi wa zaatihi wa laqabihi bi tilka taxiyatan maymunatan mubarak ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh eh, tabaarakallahu mbokk jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara tabaarakallaahu xaj moodu di jël nayoo bi rek di ko teg ci sa nayoo mu jot mbooleem kilifa yi waaye dagg di xaasal xulafaa yi ci réew mi di si jiital sunu xalifa Serigne Babacar Sy Mansour ak mboolem usratul malikiya tabaarakallaahu di ndokkel taalibe cheikh yi di ndokkel jullit ñi di ndokkel njabootu Seyd El Hadji Malick euh, xaasatan ci guddi yu tedd yi tabaarakallaahu ñu nekk di nuyu nag mboolem ñuy seetaan télé bu mag bi di groupe Futurs Médias tabaarakallaahu di jël nawe di ko teg ci sa loxo nga jotalal ñu ko mboolem tabaarakallaahu personnel buy liggéeyee ci kër gi salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf oustaz Moustapha Cissé yal na yàlla barkeel la invité woon nañ la waaye soppe yeeg am di jàmm yeeg xarit yi doyaluñu ci yow ci waxtaan wi nga xam ni def nga ko ci leeral burdu waxtaane Seydil Hadji Malick waaye waxtaane burdu tey nag ñu war a jàng fukkeelu bunt ñu bëggoon nga ñëwal ñu ci importance bi nga xam ni fukkeelu bunt bi am na ci. ak itam ci lan la imaamul Busayri yi doon wax ndax ku ne xam na ni téere bi ay bunt yu bari la mën nga ni fukki bunt la bunt bu nekk ak mawdu bi muy wax ñu bëggoon nga ñëwal ñu ci bunt tey bi lan la ko jagleel yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw tabaarakallaahu ustaaz laaj bu am solo la nga xam ne fukkeelu bunt bi mooy bunt bu mujj bi mhm. desaa tey mooy tëjtelu burdu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne innamal umuuru bi xawaatimiha mhm. nee na mbir yëpp yiw ga ak barke ba mu ngi ca mujj ga mhm. kon tabaarakallaahu moo tax tey ku Seydal Xaaji Malick njaboote dagg na itam fekkee ci bis bu tedd bii sa laaj bi nag Mouhamadunil Buusiri bunt bu ne ak xaasiyaam waaye daf ci raw bunt bi bunt bi daf ko ubbee yaa akramal xalq maali man aluuzu bihi siwaaka inda xuluulil xaadisil himami mhm. Oustaz Modou Mouhamadul Buusiri dafa def li ñuy tuddee tawasul bi muy def tawassul nag jaaree ko ci ku gën ñëpp muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la sa góor ga Seydal Xaaj Malik doon wax Muhammadin xayri mabuusin xawaa sharafan ne baabil ilaahi limaadil xalqi limaadil xalqi wal aati sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu kasra ko nag badal la su deen doon mubtada muhammadun lay wax comme nu yàlla waxee ci alquran muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ne muhammadin ñi ne amu ne xayri mabuusin moo gën ci yonent yi sallallahu alayhi wa sallam xawaa koog laaqana sharafan tedd ngi ci juddu ak ci jikko ne baabil ilaahi mooy buntu yàlla bi buntu nag su ñu ko waxee mooy fu nit di jaar pour dugg waaw bunt bi pour ñan la mu ne limaadil xalq la yàlla bind ca maam aadama ba sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku yegg ci yàlla ci yonent bi la jaar wal aati sayduna muhammad bi mu juddoo ba keroog ñi wal buftu ba ku yegg ci yàlla ci moom la jaar est-ce que muhammadul bi bàyyi ñëpp jël ko def tawasul ci moom waaye oustaz tawasul xam nga ne am na ñoo xam ne ànduñu am na ñu si d'accordul am na ñu si d'accordul te muhammadul buusiri incha allah moom la ubbee bunt bi ne yaa xayra yaa akramal xalqi yow mu gën a tedd ci mbindeef yi Mhm. maa lii amuma man koo xam ne aluusu bihi dinaa wéeru ci moom ñu ne ko ani yàlla waa yàlla ku mu dàq koy làqu doone ma yàlla de <laughs> déedéet mu ne si waa ko ku dul yow amuma ku may wéeru ku may làqu ku dul yow ku dul yow yonent bi yow yow Seydina Muhammad mu ne inda xululil xaadisil amami suñu demee ba yàlla def nit ñi dekki ci bàmmeel waaw ñëpp jaaxle ñëpp tiit nga xam ne ku amul kilifa keroog daa jaaxle mu ne benn falaa laa yaakaar ma yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi am na ñoo xam ne d'accorduñ ci tawasul Muhammadul Buusiri def ko sa maam Seyd al Hajji Malik def ko allah ya rasulallahi ya afdal al wara faha nahnu fii dayxin shadidi tarakumi fee mu ne falaa bu damin shakwa fële mu ne falaa bu damin shakwa ilallahi kurbati fama kasrati kon coow day am maa ngi nuyu sama kot tabarakallahu hajrasin coow day Seydi xaj Malick dafa am taalibe toujours ngeen nettali ko mu nekk Kaolack di wazifa waaw ndax wazifa dafa bokk ci charte yi su dee mbooloo baat yi jug hmm. ah ñii wazifa ca jàkka ja ka fa nekk di tubaab gëmul lislaam gëmul tariqa ne gaa ñi dañ koy tànqal mu ne wazifa bi da koy tànqal da koy tànqal faaw gaa yi arrêté mbaa mu xool nu mu def waaw waa ji ne dam am kilifa daal di ñëw ci yoon wax ko Seydi Hadj Malick Seydi Hadj Malick xam ne du fi nekk di woo gouverneur. waaw waaye am na ku ko man muy sunu borom. mu xam ne comme yonent bi mooy bunt bi mu jël baatu allah ya rasulallahi teg ci yaa afdalal wara fëhë hëgi li tanbiih la mooy yëgal nax nu ñun sa njaboot fii diqin ñun ci xat-xat. allahu akbar. xam nga kookoo gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi ñu ne lu tax mu woo yonent bi mu ne alquran la ya ayuha alladina amanu taqullaha waaw wabatahu ilayhi wasila allah wax de waxut wabataxu ilayhi wasilatan déedéet waaye daf ne al wasilatu waaw su doon wasilatan dañ naan jëf ju baax rek la ndax tawasulu bi amali saalihaat moom ñëpp a ci d'accord ñenn ñu lu ñu bañ mooy tawasul ci nitu yàlla wala ci mbindeef ku dul yàlla waaye foofu xaj moo di coow day am jëf ji Seydil Xaj Maalik moo ko jëf mu baax muy ñaan yàlla na ko maa ngi lay ñaan ci barki jëf ji nga nangu nee nañ loolu dagan na waaw léegi jëf joo xam ne nit ko def yàlla balaa nangu jëf daa gërëm ku jëf balaa nangu jëf daa gërëm ki jëf daa gërëm ki jëf nga bàyyi ka jëf di tawasul ca jëf ja neex na rek exemple waaw bool bi nga xam ne moo def ceeb bi waaw nga ne damay sant ceeb bi bàyyi bool bi dëgg la de te ceeb bi soo ko defoon ca pollu mbalit ma doo ko lekk kenn du ko lekk doon li mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alwasila algoogu listigraaqiya la wa kawnuhu billaami fi naxwi ulim lakinna listigraaq fihi yanqasim gis nga algoogu yàlla jëfandikoo moo tax dagan na nga tawasul ci yonent bi Maodo dàq jàng ñëpp ne allah ya rasulallah ñu ne ko ko yonentu la mu ne déedéet ilaahi bi qutbil واقفين إمامنا رجائي وغوصي للإله وسيلتي وسيلتي waxuma yonent bi de mais Cheikhou Tidiane man Seydil Hadji Malick damay tawasul ci moom mais ñaanul Cheikh de déedéet ñaanul yonent bi de déedéet yàlla la ñaan daf ne ilaahi bi qutbi ilaahi nag mooy yàlla waaw maa ngi lay ñaanee bi qutbi mu indi baaw sababiya bi qutbil aarifin aarifin léegi nag lu wanee loolu mooy falaa budda min shakwa ilallahi kurbati fële yàlla ne falaa budda si daxaj maali moo ne mënul ñàkk falaa budda min shakwa samak jàmbat ilallahi jëmee ci yàlla lan mu ne kurbati samak njàqare nee na su ma amee njàqare duma ko jàmbat Seydina Muhammad su ma amee njàqare duma ko jàmbat Seexu Tijaan waaye yàlla laa koy jàmbat fële mu am njàqare jàmbat ko Seexu Tijaan loolu noo koy firee pourtant Maodo daa waaw ay nit taxaw fële juddu barki démb jàng tuuti bëgg koo critiquer. kenn daa mën a critiquer Seydi Hadj Malick. jërëjëf Seydi ndax ndax xam-xamam <laughs> gis nga fële. min shakwa ilallahi kurbati. waaw famaa liya gayrallahi jaabiru kasrati ëllëg la. Hmm. yow mal soo dekkee yàlla ci sa kanam amul yonantu yonantu yàlla Muhammad nee na Fatima mi lu ma jur jur jur. su ma yàlla mayut ndigal manuma ko rambu ci kanam yàlla. kon ndekete Busiri da doon da doon da doon def tawasul ci yonent bi. da def tawasul ci yonent bi ngir lan maa ngi ñëw ci loolu. waaw imaam Shafii yu radiyallahu anhu moo jàngal Ahmad bun Hanbal. waaw dafa tëdd gént yonent bi. sallallahu mu ne ko waxat Ahmad na ko daañ ko tëj. xam nga lu tax ñu koy tëj. wax gu mu wax ne alquran du mbindeef. kalaamun xadiim la. yonent bi ne Shaafi'i yu waxal Ahmad na ko tëj góob ñi di ko tëj na muñ su deewee rek dajeeg man te su dajeeg man ma yóbbu ko ci yàlla. allahu akbar. imaam Shaafi'i yeewu woo benn njabootam Oustaz Modou. jox ko benn lettre na ko yët ko Ahmad soo demee wax ko lii. bi mu ne Ahmad bun Hanbal liir ko dégg. taalibe bi ne ko balaa ma laa wax lii sama sëriñ yónni ma danga may jox kado. Ahmad nag yàlla dogal na daawul am xaalis. mu ne ko waxal mu wax ba pare mu simmi yére am lii moo gën a cher ci man lu ma mën a maye. Mhm. jox ko waa ji waa ji bi ñibbi mu ñëwee nattale ko imaam Shafii yi daf na ko lu mu la jox mu ne ko yére mu ne ko may ma yére bi waa ji na ko dama koo soxla mu ne ko abal ma ko mu abal ko ko mu xooj ko ci ndox sangoo ndox ma tabarrukan li Ahmad bun Hanbal allahu akbar kon gis nga tawasul imam burdi imam busiri moo tax mu ne yaa akramal xalqi maali man aluusu bihi siwaaka inda xululil xaadisil himami waxaat ne walan yadiqa rasulallahi jaahuka bi isal karim isal karimul taxalla bismi muntaqimi nee na walan ya diqa du xat xam nga xat mooy lan nga ñëw ñu ne néeg bi fees na waaw porte bi nga jaar léegi ñu ne jàkka ji fees na doo dugg mooy walan ya diqa du xat mooy du fees ko sag daraja yow sayduna muhammad bi yee ci man keñ mu ne isal karimu ndem yàlla laa sol na bismi muntaqimi ci tur boobu ñuy tuddee ku mooy démb tey ma mbugal la loolu lay firi muntaqim muntaqim moo tax ne nañ yàlla su solee muntaqim dina am ku ñaq ba ñaqam wann ko ku ma mooy démb tey ma duma ko léegi nag luy tax du la duma may nga am kilifa gu la gu dox seen diggante te kilifa ga kerek yàlla nee ne kenn du ramb lu dul ku ma jox ndigal waaw waaye nag jàng nañ ci hadis. yàlla na ko yaay kuy ràmm ndax bokk na ci turam ya shafiun mu ne ko keroog daal ëllëg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow laa yaakaar nga xeetali ma ca kanam yàlla moo tax mag ñooñu tabaarakallaahu ñoo xam Seydina Muhammad moo tax ñi jaaree ci moom oustaz pour def tawasul boobu macha allah jërëjëf euh, oustaz Moustapha yaakaar na indi na ay leeral ci bunt bi nga xam ni moom la ñu war a jàng tey muy fukkeelu bunt di tawassul boo xam ni imaamul busuri mi ngi ko def ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa akramal xalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka inda xuluulil xaadisil ximami yaakaaruma kenn soxlaw ma it ku ma dimbali ku dul yow dafa mel ni yonent bi alayhi salaatu dayo bi mu am moom rek moo ko am ci yonent yi bankal sa baaraam moo wax la fukki mbir yoo xam ne si xaj maale ko ko bind ku dul Seydina Muhammad amu waaw xam nga góor gi yàlla na ko yàlla fay si xaj Malick xilaasam bi daa siw nit daw dem ca waaye yàgg naa bind <laughs> dafa siiw gaa yi dem ci dem ci waaye yàgg naa bind mais yàgg naa bind yàgg naa bind avant xilaas yaa layta nii waaw layta nii jiddul xamaaqaati du najtilaa bi ma dayaatu min umuri bi zikiri awsaafi soda fil maqaamaati loolu ku ko mën a wax xaj Moodu xaaral ma firi ñaari bayit yi wax la fukki yi waaw sa maam daf ne yaa layta nii fasha wa nadara wa ma laan la kis wa kun mu xayyara fil baaqiyaati wadda tiraarin xafafa minni wa anni baadu man qad salafa la ibnu Malik wax mu ne yaa layte nii ak a neexoon layta xarfu tamani mooy nit bëgg loo mënul am di ko mébét. di ko mébét mu ne yaa layte nii waaye nag lu man nekk bu mu nekk mustaxil de waaw ndax layta léeg-léeg mu nekk mustaxil léeg-léeg mu nekk xayru mustaxil. Mhm. soo ne laytal du yan jax ak a neexoon yambar bi réussite. xam nga man na nekk mais day jafe day jafe waaw waa laytal am su yahuut aka neexoon démb dellu si kooku mënul nekk sëriñ mhm. mu ne yaa layta nii aka neexoon jëlaat layta nii teg ci te layta nii goog soo ko firee doo dégg lu bëgg wax mooy yaa layta nii qaddamtu xayran wa ma dayatu min umuri bi zikri aw saafi soxda fil maqamaati moo dene ne aka ma jiital yiw ba ëllëg su ma wootee dar ñul burdu nit ñi dañ xaj ci waawan allahu akbar wallahi ku ñëw gis mbooloo mu nekk fii dina xam ne jaamu yàlla ak tappale bokkuñu. billaahi bokkul. Cheikh Seydil Hadji yàlla doo ko jaamu mu bàyyi ba ëllëg doog laa fay. déedéet. da lay fay ngir ñuy dund mën a góorgóorlu loola fay Seydil Hadji Malick tey bis bi. allahu akbar. TFM bi ki soo ko soxlaa ay millions nga ngay fay pour mu yow. dëgg la. mais Seydil Hadji Malick tax ñu dagg seen yitte. maa la wax fukki fan ngay waxtaan ak ustaas billaahi wal kitaab yàlla ñu yàlla fay Seydil Hadji Malick. amiin yaa rabbal aalamiin gis nga xadamtu xayran. nee ak a neexoon ma jiital ndax day xësal bañ nekk di fàttaliku soxda nga bàyyi boobu jëlaat layta nii du netti laa bi si millaatil mashaqaati moo da nee ne di wax ak a neexoon te jogoo góorgóorlu nee na jiddul xamaaqaati mooy dof xasida bu neex sëriñ taa'iya boobu ci biir xasida bi nag la waxi fukki daf ne tabban wa suxqan lahum wa suxqan lahum wal badru shaafiina ashrul xisaali hawa duna albariyaati nee na fukki yi may bëgg wax ku dul yonent soo ko amee ginnaaw Seydina Muhammad nga ko amee ci barke mais moo ko njëkk am fukk fukki mbir ñu ne ko bu si njëkk mu ne lam yaxtalim abadan yonentu mosul gént mosul gént yeewu dem sangu ji waaw mosul dal Seydina Muhammad allahu akbar dégg nga dégg ku ne la yonentu mosul gént te nga jàng ruya xitaabun kazal ilqaau min malakin maratibul waxi la tartab wala tahimi mhm. moo dane fii dama na lal lam yaxtalim fële mën a la ruya bokkuñu <laughs> sa maam ah sama kutu hajiraas maa ngi koy jéggalu bu baax daraan ma yow say wax da ngay gaaw a fekk mbindum mag ñi moo mel noonu waaw daf ne lam yaxtalim yunantu mosul gént gént moo yeewu dam sangu ji waaw ndax ci bakken lay tegu su dee gént nag muy wàllu ruya moom la yonantu waxoon sallallahu alayhi wa sallam nee na xaaj la ci juróom-ñaar fukki xaaj ci nubuwatu allahu akbar moo tax nee na su ma faatoo wax yu dootul amati lu yàlla bëgga waxati mbindeef ci gént lay jaar kooku mooy ruyaa mhm. nee na yonent bi lam yaxtalim abadan mosul gént te du gént ba faw mooy benn waaw qul maa lahu zulalun maa ji naf yu la nee na yonentu amuloon takkandeer ku taxaw si lamp gis sa bopp ba mu des yonent bi ba mu Muhammad moo tax man dama xaw jaaxle Maodo daa bind na amoon na seetu seetlu nga. te amuloon takk na mais ça loolu foog nga leeral ko nag. seetu dina wane seetu. déedéet lumière du génn lumière. déedéet mais day wane ne nit ki. sama njaboot nga te ni mu mel meloo ko te balaa ngaa génn ci nit ñi da nga war a soo génnee ñu fonk la. moo tax su ne la jullit am seetu waaye yonantu kanam nga. su tappee ci miir nee na mook seetu ñoo yem ndax leeration ba allahu akbar ñàkk takk ndeer nag mooy lu la keral lu ne dalaa ëpp leer soo duggee ci lëndëm gi doo gis sa takk ndeer ndax lëndëm la yonentu moo gën a leer lamp bi salaay sallam yonentu moo gën a leer jant bi chamsu duhaa amalat ushayra diyaihi isfataha tamarat bi amril imaam yi soo demee ca miimi yëba muy abada bu rox la wax bayit boobu nee na jant njolloor dafa ñëw ne yàlla xaajal leeru muhammad fukki xaaj may ma fukkeel ba yàlla na ko nit ñi dee xam nga tàngaay la ñuy jàmbat fan yi fukkeelu xaaju leer la ñaan yàlla na ko kon nit ñi dee te konoon guddi du am ndax fu mën a nekk day leer bi mu xamee ne mënul nekk nag moo tax keroog bu ko yënantu soxlaa pour mu wàcc mu wàcc bi mu ko soxlaa pour mu soo ba pare fenkaat mu soo fenkaat kon yonantu mosul am takkandeer mhm. wa maa tasa aba nee na yonantu daawul óbbali ndax óbbali ku ko def seytaan la daawul óbbali daawul dañ ne nit su óbbalee daa gëmmint gëmmint wala mu sonn wala mu sonn fekk seytaan moo lay roof oustaz na la tëddal noppalu waaw te la raxata fi dunia wala najaata minan naasi noppalu amul ci kaw suuf laagi naafiyatu lil jinsi la allahu akbar moo tax yonentu mosul óbbali euh, borom xam-xam yi dañuy wax ne seydina muhammad salaa sallam nee na iblis bés boo gisee nit bañ a óbbali tey jullit na kabar di julli balaa nga jàpp la iblis ñëw jëm la yàqal nga nga gañee ko dem jàpp ñëw taxaw mu bëgg la yàqal nga gañee ko kabar mu def benn ngelaw ëf la ko nga óbbali moo tax téere yi ne sooy óbbali jëlal sa loxo teg ci sa gémmañ suy ndeyjoor kanam gi suy càmmoñ ginnaaw gi ndax soo ŋaaŋee rek iblis day dugg sa biir te su xas dugg manoo fexe ba sa julli du yàqu Moustapha muy ñaata muy ñett ta wax naa la wax naa bëli wax naa la amul takkandeer ñu ne ko Maodo ñeenteel ba mu ne tanaamu ayna nabiyillaahi sayyidina wa qalbuhu dëhra ma zaqal manaamaati nee na Moustapha daan na tëdd ndax nit la laa taaxusuhu sinnatu wala naw mu yàllaa ko moom waaye Moustapha nag nelaw gu ko yàlla jox mooy gëmmi bët waaye xol ba moom mosul nelaw ku dul yonantu nag soo tëddee nelaw. sa lépp ay coupé <laughs> wallaay Oustaz sa lépp coupé. moo tax ñeenti jikko ngi nii yoo xam ne ku ko am ci xeet bi mën na nekk. mais ndonna la ci sayduna muhammad ñi ne ko ak ban mu ne laqatal laqat atal arda maxtunan wama nee na bi muy ñëw ci suuf dafa ñëw fekk ñu dugal ko néegu góor su ma ko soñoon wax ab Moustapha muy man wala ma sañ ko wax ab paate wala ab demba dama naan nit mosul teg bëtam awraam sallallahu alayhi wa sallam ndax bi muy ñëw yàllaa ko programme ba pare laqat atal arda max tuunan nee na bi muy ñëw suuf fekk na mu nekk ku ñu dugal néegu góor wa mazu baabu alayhi waaqifun abadan nee na mosul toog weñ dal ko loolu nag sa góor gi donn na ko waaye ci sayduna muhammad mosul toog weñ dal ci kawam ndax weñ su dalee sa kaw sa kër la di nga am parfum di nga set di nga def lu ne teewul weñ dal la te nee na weñ fu mu naawee rek daa am xet goo xam ne su ko nit waaye loru weñ daw njakk ko pour nit mën a jëfewu mata tax nga gisu dëkk bi salte rek weñ yi bari léegi nag ñu ne waaw nit ku set nekk place bi set pourquoi weñ di ko dal waaw kooku bàkkaar lay doon xadir moo ko tontu dafa toog so benn yére lu mat fukki at daje yonent yàlla Moussa ñi ne kenn la ci yonent yi mu nekk ko yow bu mu la dalee gis ba léegi yére bi ngay sol lu tax ràppul xooteekuwul mu ne bàkkaar buy tax yére di ràpp mosuma ko def allahu bàkkaar buy tax yére di ràpp mosuma ko def kon yonentu tabaarakallaahu weñ mosu koo dal ñu ne ko ak ban si haj malik mu ne si yaani man kaana min xalfi nabii wa amaamuhu innahu shamsul xafiyaati Moustapha soo nekkee ci kanamam looy bañ def mu gis soo nekkee ci ginnaawam bu ko def boo ko defee mu gis la te du gestu <laughs> wa innahu bi jamiil jismi multafitun wala yulaawi bi unqin misla zil fahimi sa maam ne ne su daan dox am lu biir wi du ge du leem loos bi ni muy gisee kanamam lay gisee gannaaw waaw kay léegi kon nag yow oustaz Modou Fall soo ne ko yaa Muhammad wala yaa rasulallah xormaal la moo tax waaye mu ngi lay gis mais day ton jëmm ji ba jàkkaarloog yow ba jàkkaarloog yow na la labayka wa saadayka lu xam nga lu wane loolu benn xadis xadisu day ni dafa jiite gars yi tisbaar ñi ne tàkkusaan muy julli am saaba yi ñoo xam ne su suñuy julli naafiq yi dañuy dugg seen biir oustaz waaw soo am ñoo xam ne soo kiyee ñu tafu la am ñoo xam ne dañuy ñëw si jàkk ji pour yeneen bi gis leen su Moustapha kabare rek ñu génn dem ndax gëmuñu julli gi. waaw Moustapha Sëlmal ne ani diw ñu ne ko génn na mu ne soo leen taxawati na sàpp yu jub te bu leen fo ndax ni may gisee mihrab bi laa leen di gisee. te wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tabaarakallahu muy fukki mbir yoo xam ne beneen bi mu ne mastan farat nismatun min xiina yarkabuha nit ku mën a doon sooy war sa fas sax fas wi dina xaw a tourné soo jubee gàtt te yet mu daw mu ne Seydina Muhammad mosul jub gàtt nga daw maa farra anhu wuxushun bal tuwaalifuhu wal milxu asbun furaatun laysa bi sulubi bu la jubee rek da taxaw dangay daw ñëw doo taxaw da ngay daw ñëw wuy si ko wuy si ko ndax dafa am benn gëlëm boromam di ko liggéey la ba ba si ñëw mu ne boromam bu mu ko jege gëlëm su meree mën a rey nit waaw te day denc mer. dëgg la waaja daw. saa yu jubee gëlëm gi rek mel ni ku gis gaynde waa ji dem boole ko yeneen ti bi na ko man daal sama gëlëm gi raay ma la bëgg te comme yow yaay koo xam ne ku jaaxle ñëw ci yow dimbale ma ci Moustapha na ko nañ dem bi mu ànd ak Ababacar ñëw ba ci wudd bi waaja dafa daw téye ko na ko Moustapha ma dee moo gën nga dee te gëlëm gi soo ko jegee mu ray la yonent bi mu muuñ ci yonent bi na ko yow la xamul waaye xam na ma wallaahi xam na ko dox dajeeg moom gis nga bi mu jubee gëlëm gëlëm gi dafa cal xam nga cal dawi na gëlëm yooyu ñëw ba ci Seydina Muhammad foon ko sukk jël lii teg ko ci suuf yonentu daal di jël làmmañ bi teg ko ci nopp bi na ko lu waral bañ gi mu ne ko waa ji la ko yàlla digal nekku ci bëgg ma nekk ci la ma digal oh. xolal mu ne gees waa ji julli nga tey mu ne ko damaa naajee lu mu ko laaj rek mu gàntal ndax du fen ndax lu mu gis mu ne ko gëlëm gi nee ne bés boo toppee yàlla mu topp la waa ji jaaxle na ko Moustapha doo ma digal bis ni ki tey ma di la jullil may may sujjoot ngir yow mu ne ko déedéet laa yasjudu ahadun li ahadin déedéet nit du sujjootal nit dëgg la law kuntu umirtu an asjuda ahadan li ahadin la umirtul mar'ata an tasjuda li sawjiha dëgg la nee na su ma doon digal kenn mu sujjootal kenn du sëriñ ak taalibe du baay ak doom waaye jëkkër ak jabar la waaja daal di xam ne kii nag moom la yàlla yónni waaye nag du tee nga nayu nit mu mbëkk sa loxo wala mu fóon ko kooku dara nekku ci du tee nga jub kilifa daal di wàcc dara nekku ci lu ñu bañ mooy jël sa jëbi teg ko ci suuf ngir nit kooku mooy shirk su ko defee oustaz tabarakallahu fukki yaa ngi noonu yal na yàlla fayal ñu Seydal Hadji Malick jërëjëf oustaz Moustapha Cissé ci leeral yu am solo yi li may faral di wax boo tàmbalee di waxtaane ku tedd ki te mooy yonent bi alayhi salaatu salaam kenn du doyal mais dafa mel ni nag tey mooy tëjtal bi suba ñu noppalu dimaas nag mooy coupe du monde bi ah <laughs> ci la ñuy songu nag juddug sangu àddina ak alaaxira sallallahu alayhi wa rek soppe yëpp a ngi seetaan àddina bi yëpp diaspora bi ñëpp a ngi lay bàyyi xel maa ngi jot ay message mm-hmm. juddoom gi mm-hmm. nan la ñëwee ci àddina ak keroog bi mu ganee àddina lu xew sallallahu alayhi wa sallam waaw mën nañu sama xalifa Cheikh Seyd Mahamadunil Kabir ndeysaan tabaarakallaahu si ndamee bay tëj nga may ñu ñu néew ñu war a néew hanka insha allah te si ndigal lañ fi ñëwee di nuyu waa daara sama moo ne yaa laylatan laylatul qadri lati sharufat tawaddu maa xawatha wallaahi maa yéemu lu Maodo yéemu rek lu rëy la. Seydil Hadji Malick mu ne maa yéemu. yaa layla tan yaa layla tan su ko arab waxee soo koy firi da ngay jàpp sa bopp. mooy wuyaay yooyu. yaa layla tan ndax nag waxut yaa yal layla te it dañ koy tere. mu ne yaa layla tan ndax wa nakkaru ifraadan naw taazima naw tankira naw ta taqlila naw taxqiira naw tanwiyan ah nakira la goo xam ne li taazim la mooy day màggal mhm. mooy yaa laylatan maa yéem guddi ga ñu ne ko gën guddi mu ne laylatul qadri gii nga xam ne fu mu jotee ñëpp keddi seen lal mhm. nee ne tawaddu ngéejoona moom guddi ga maa li nga xam ne xat xawat hu làq na ko mhm. xat xawat ha làq na ko moom guddig juddug Seydina Muhammad min fadilaati ci ay ngëneel mhm. xam nga guddi yëpp laylatul qadri moo ci ëpp doole mhm. waaye Seydi Hajj Maalik ne ne guddi gu yonent Yàlla Muhammad juddu mooy gi ngay laajte nee ne laylatul qadri ngéejoon a doon ko allahu xam nga lu leen wuutele laylatul qadri ci la yàlla dogal suñ jataay bi ak laylatul qadri li muy màgg-màgg yëpp laylatul qadri xayrun min alfi shahri min alfi shahri waaw gu guddi gàmmu bokkul <laughs> ah alfuseri boo xam ne gàmm bokku ci. gàmm kañ gàmm guddi ci waaw xam nga xam nga tey si daxañ maa sokee tagg nga ne ko nga ne ne koy am amoo morom. waaw nel Cheikh Tidiane bokku ci. waaye wax nga dëgg de. sooy tagg yonent yàlla Moussa mu bañ a tooñ. ne ko amoo morom Seydina Muhammad bokku ci. waa dëgg la de. mais du tee nga ne ko amoo moroom ci say ñoñ. waa dëgg la de. kon laylatul qadri lu tax mu am doole mooy guddi googu si jotee lu war a am ci at mi ci la yàlla jël dossier yi jox ko malayka yi jataay bi laylatul qadri la ko yàlla dogaloon waaye du ba keroog ñëwal buftu ba de saa yu dellu see déwén dañuy dajewaat ensemble dañ koy renouveler waat jërëjëf su dee guddi gàmmu nag moom muy guddi gu Seydina Mahamad juddu waaw laylatul qadri bu daaw ba dafa puugare ca bu daaw jéeg ba xam nga lu tax ah. daf na ko maa la gën a jege guddi ga Seydina Muhammad juddoon moo tax guddi la dalee maam aadama ba yonentu juddu bu ñëw yaa gën waaye ba Moustapha juddoo ba keroog ñuy wal buftu ba oustaz Modou Fall guddi gu ñëw démb la gën <laughs> ndax moo gën a jege guddi gi ngay laaj man jaaxal na ma waaw fii xadara bi la mooy wax nee na guddi googu yéem na ko ci ay téere yu bari guddi la goo xam ne ci la Seydunaa Muhammad juddu. sallallahu alayhi wa ñun guddi la ñuy wax. waaw léegi lu tax du bëccëg. xaalu nahaaran. waaw wa laylan qiila zaalika max. muulu li makkata aydan fa'tabir waqumi. wa jaamiun zaynika alqawlayni qaala buddi. Mhm. laylan wa tatmimuhu fil fajri fastaqimi. guddeeg bëccëg ñoo coow dem ci yàlla. waaw. ne ko àtte Oustaz. waaw guddeeg bëccëg ñoo coow dem ci yàlla ne ko àtte ñu. ne ko àtte ñu waaw. ku nekk ne maa gën sa morom. guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg. yàlla gis bëccëg gis ne laylatul qadri nga xam ne mooy sangu fan yi. waaw guddi la. mu ne nag yonentu su juddoo bëccëg bëccëg a gën su juddee guddi guddee gën. waaw ñu coow ne yàlla àtte ñu guddi na ko jox ma ko. guddi ni ko jox ma ko jox ma ko. bëccëg na ko jox ma ko. yàlla nag loo leen bokk yàlla ko mandu la ci àtte. noo leen bokk ñi na fajar yàlla jox ko fajar <laughs> waaye fajar xeet la ci guddi ndax amul jant dëgg la de Maodo noppal ñu ne wa jaami an zaydikal qawlayni qaala buddi laylan wa tatmimuhu fil fajri fastaqimi yàlla ni guddi loo gën a jege mu ne ko fajar fajar jox ko fajar léegi lu tax yonentu juddi jamono jooju mooy bëccëg dafa tàng bëccëg daa ñàkk sutura. dëgg la de bëccëg baay du tal doomam ndax liggéey. déedéet bëccëg jabar du tal jëkkëram jëkkër du tal jabaram. waaye fu guddi jotee ñi dellu ca kër ga tàppoo yàlla ne mbégte mii di am du ko wax bëccëg ñi koy xeeb guddi laa koy wax. allahu akbar yàllay la tan. Oustaz Modou guddi goog ngay laaj muy gi Seydina Muhammad juddu. waaw keroog bu mu juddoo coow daa am xam nga lu waral coow li mooy xàmmiwuñ bëccëg bi ak guddi gi loolu nag amul benn mbindeef bu ko am. bi mu juddoo bi mu juddoo dañoo laajte ci guddi lañ nekk wala ci bëccëg ndax leeration bi te leeration bi non seulement fii ngay toog fii di seen Dakar leer gi day bëtt miir. allahu akbar leer gi day bëtt xijaab mënul ko kiir moo tax ngay nekk màkk di seen bataxa mooy xurya <laughs> yahud ya nekk ma Madina ku ci yeewu gisalal tëdd sa kaw mais ànd ak li ngay nekk nekk ci suuf yaa ngi gis Kaysar. guddi googu waxuma la màggal waay waxuma sunnaak ngëneel ak mais farata la laa ilaha xam nga Moussa lu mu def waaw firaw naa ko topp nar mu ñëw ba ci géej gi mënul jàll waaw ñam àndal na ko musaa daañ dee de te yaa ñu wax na yàlla am na de waaw Moussa xam ne su muccul la gaa yi weddi ko mu daal di ñaan yàlla yàlla na ko xar géej gi mu jàll gis nga ñooñu jàll ci géej ga ba nii may wax fu bés ba dellu see ñi feete ko mooy asura mucc gi nu muccoon mucc rek mucc Moussa. <laughs> ñu ne waaw lu waral woor gi ñu ne ci la yàlla muccal Moussa ak sunuy maam. waaw kenn weddiwu ko kenn critiquewul ko. dëgg la. Maodo woote ñu ne lu waral daje bi ñu ne Seydina Muhammad ci la gane àddina. allahu akbar. nga toog. ah loolu kat bii daa la de ne su ma fi nekkee di wax ngëneel du am sens mais dama koy woote. ñu ko nay woote mu ne Allah azimu. laylal wilaadati xisbatan iza lam yakun naxwal xaraami maa ngi ko firi woon nag ca koréna ba dama ne allah li tan bii la day yeete gis nga ku doon nelaw ba maw de ne allah dangaa yeewu ñun xam nga lu tax ñu ñëw su la fekkee ci sa ruuxumu waajur wala ci sa ndiggu waajur bu góor yàlla dalay dégtal woote ga gis nga maa lay wax nag lu doy waar maam ibrahima ba mu tabaxee kaaba yàlla daf na ko wooteel mu ne ko sama baat bi ku koy dégg mu ne ko woote gi yow la waaye maay jotal mm-hmm. mu woote wa azin fi naasi bil xajji yaatuuka wa ala kulli daamirin yaatina yow ñaata yoon nga dem màkka bari na de mais est-ce que ba ngay wax labbayka yëg nga ko déedéet yaa ngi ci alamul arwaax Maodo bi muy wax al azimu ñun juddooguñ pourquoi ñi ñëw yàllaa ko dégtal sunu ruux moo tax tey ñu wuyu ñuy ñëw far force far ak coono bu nu mën ak loo mën a daj. dem Tiwaawan dem Tiwaawan am na ñoo xam na ne suñu fa deyee sax baax na. billaahi. waaw Maodo léegi suñ ñëwee nooy tuddee bis bi mu ne azimoo na ngeen màggal lan mu ne laylal wilaadati xam nga kii baax na toujours ngeen wax ko ku ne woote na bësam moom mu wootee wooteel yonent bi ma ne nag gis nga sëriñ léegi affaire yi leer de. <laughs> mais oustaz kon fajar gi Seydina Muhammad di gane àddina événement la de. bu rëy da nga bëgg ñu gàmm daañ gàmm <laughs> dinaa gàmm bëgg a incha allah <laughs> mais xam nga lu tax oustaz affaire di leer dama ne ku ne man am naa taakusaan waaw te dégg sëñ Babacar nit ñi di ñëw. waaw yow am na bés keneen am na bés keneen am na bés mais Maodo ñam bokkal jamono ku ne am na bés. ña ko jiitu ku ne am na bës mais moom mu woote wooteel yonent bi lu muy tegtale pourtant sëñ Babacar nga wooteel day wane ne mooy. kilifa waaw moom wooteel gu mu wooteel yonent bi day wan ne jamono jooju kat moo ko fi nekkal te fekkonte ne ci bakkan la tegu nit ñi bàyyi nañ bu yàgg démissionné nañ bu yàgg téeméeri at nit ñi di gën bare yàllay kase billaahi wal kitaab yàlla ñu yàlla fayal seen xaj maalik gàmmu Tiwaawoon bu ñëw bi nga dëgmal moo koy dàq léegi nag juddu ga Seydal Xaj moo way ne yaa laylatan yaa laylatan laylatul qadri lati sharufat tawuddu ma qad xawatha min fadilati fale mu ne àla adimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwa alxaraami uduli xisbatan goog laa bëgg ñu waxtaan waaw màggal leen guddi gi ñu ne lan mu ne pour wut yiw mais yiw mënañ koo wut te duñ màggal ankay kon lu ci màggal mooy bi azami zamani wal makaani taazumu taati maala isyaani est-ce que weeru koor ba yàlla waxee kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ba mu waxee laaya bi su dellu see est-ce que yonent day koor gi mu ngi ñëw waxee ba léegi fu wóor jotee nga waajal ñëpp wóor dëgg la de mawlid bi tamit noonu la demee moo tax fu bés ba jublisee rek yàlla moo koy taabal ci xol yi loo wax lu dul gàmmu du saf nit ñi duñ la déglu luy loolu kenn du la déglu du mais woote dafa am danger ndax nit ñi suñ la wuyusee te waxoo leen yàlla. dañuy daw. waxoo leen lu am njëriñ nit la mu fekkee rek gis nga bool soo ko ubbee jox ko xale la mu fekkee ca bool ba lay jël. billaahi. ku dul waliyu xale nga. dëgg la de. léegi nag comme xale bi yaa ko jox bool bi su lekkee muy poson bàkkaar ba ku koy gàddu. yow mi ko jox yow. moo tax si bi mu wootee ba ñëw oustaz daf ne xisbatan ngir daw coow xam nga xisbatan mooy lan. Hmm. nañ toog waxtaanee jikkoy Seydina Muhammad. waaw. nañ wax nit ñi ngëneel gi pour ñu gën koo sopp ndax ñaar ñi dañoo ànd benn waaye dafa wax ne Maodo dafa jóg pour nit ñi sopp yonent bi kenn ko déedéet sopp ko du farata Maodo dafa jóg pour nit ñi topp yonent bi ma ne ko daa daa naanul rek. dëgg la de waaye topp ak sopp du ñaar benn la. topp ak sopp. topp ak sopp du ñaari jëmm benn jëmm la xoolal yàlla. qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumu laahu xoolal baatu mahabba la jëfandikoo ak baatu atia moo tax soo toppee rek sopp sa góor gi ne wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin ñu ànd léegi nag moom dafa ñëw Seydil Hadji Malick pour ñu sopp ko mais dafa ñëw pour ñu topp ko su wootee gàmmu te bàyyil fi xilaas fu nit ñi jëm déedéet dañuy sonn ma ne nag xilaas réew ma naqaree waxi loo wax rek ñu ne day xeeb sëriñu jàmbur wala day gaaral. hee oustaz waxal loo bëgg a wax. laa tasub wallaahi alazim. loo bëgg a wax wax ko. laa taxut fii sabbi saadaatin madaw waykat ba nee ne bul sax di ŋàññi mag ñi nga xam ne dem nañ fa innahum laysu min ahli zalal mag ñi nga toog pour ŋàññi leen suñu defoon naka su noonu fàtte nañ leen nañ fàttee suñuy maam ya allahu akbar waaye nekkal yàllaa tax ba tey ñi di ñuy waxtaane seen ngëneel di waxtaanee seen jàngal di leen tudd di leen tudd di leen fàttaliku di leen fàttaliku di leen ñaanal raw di li nga fa man a faree am na ñu ma gis ñikki <laughs> raw du sëriñ kër Si de la fay génn waaw kuñ ko jox nga bàyyi nga bàyyi liggéey allahu akbar yàlla ñu yàlla alamin sëñ bi xisbatan sàkku ba bokk na ci waxtaanee guddi gi ñu bàyyi si xel. waaw xam nga bokk na ci ñaareel ba jox nit ñi ñu lekk. moo tax soo woyee nit ñi bañ ñëw miraasal sa bopp togg ñami jox leen. nit ñi suñu ñëwee nu ñu leen fàttali ne nañ jàng alquran dali góor ñeeg jigéen ñi rek noos ñibi loolu du bàmm déedéet donte benn kaamel la nañ ko tasaare ndax faqara uma tayassara min alquran min alquran te nag mooy cosaan bi jàng alxuraan. mooy cosaanu gàmmu moog maam rawaxaan ñaata at su guddi jotee kii jël xaaj kaw bi kii jël suuf bi. cey maam rawaan balaa jàkka jee salaatu ñi tëj daf seeni dog ñaanal réew mi ba déwén. allahu akbar Maodo yaatal koo tax mu woote ko kon suñ ñëwee dal boo mën a dal tasaareel kaamil ngeen jàng loo leen di def da koo def Oustaz moodu loo leen mën a nekk ba wasifa jot nañu wasifa ca dal ba. Oh. suñu leeree na ñu demee dootul am sécurité ndax ay jigéen rek la ñuy bàyyi nañu lal su ñu mbalaan lal mbalaan mi ci dal bi ca dal ba wasifa ci dal wasifa ca dal ba ndax innal wasifata mhm. lil biladi asimatun kazaka iqlimuha fi kulli buldaani sa maam nee ne coow lii ngeen di dégg sa yu ñu yaakaaree ne réew mi dina takk ñu toog rek mu fay nee na du dara du ñaanuk sëriñ du jàmbaaruk politicien du pexem dara ñu ne ah mu ne mbalaan yu ñu tàllal la di bàkk yàlla. allahu akbar nee na waxuma dëkk bi nga koy defee mais région ba département ba ñëpp ngay aar kon gis nga xisbatan waaye oustaz su ñu ñëwee soo yëgee ne oustaz Modou Fall ñëw na te sa mbokk la. xam nga fu mu nekk solal sa dàll seeti ko. xam nga yonentu ba mu demee ca xuntuma gis fa lu ko jommal. mu jógee fa ñëw na xadijata zammiluni wa aba murtaidan mimma yara fazian wa qailan zammiluni tarfau xumami xam nga lu xadija wax waaw daf na ko daf na ko daf na ko laa laa laa taxaf abshir lan yuxzika allahu abadan innaka la tasilu rahima waaw wa tasduqul xadisa loolu mooy lan loolu mooy lan mu ne ko la tasilu rahima xoolal boobu diina amul de mu ne ko yow ba ma la xamee ba léegi fu sa mbokk nekk jokk nga ko da jokk mbokk moom yonent moom yonent balaa yàlla di ko yónni moo tax nabiyun kaana qabla kawni nuuran fa jaanin qabla al waxyi kulla diini lu muy nekk nekk nekk nekk ci jamonoy jaahil mosul ma yàlla rasulun karimun ma sabaqatun fi siba waqad kaana yaaya an madaahu kuhuulu ca laamiya ba jaarul ci ndaw jaarul ci ndaw mais xoolal bi mu ñëwee xarija def na ko yow dafa bokk ci say jukko jokk mbokk moo tax ngëneel gu ci nekk soo ñëwee Tiwaawan sa mbokku ñëw bu la bu la bu la noos jàpp bu la taayal jàpp solol sa daal seeti ko ndax xisbatan dem doxi mbokk dem doxi mbokk xisbatan wasila bu la jox tarixa bi wala ki nga bokkal yoon bi ki nga xam ne chaque année mu toog ci télé bi di la jàngal nga yëg ne mu ngi nangam solol sa daal seeti ko tàllal ko loxo na ko sëriñ ñëw naa waaye ñaanal ma yooyu yëpp ci xeetu xisbatan la bokk beneen bi oustaz nga may ma rek ma ñaan ko ndax it waxal loo bëgg a wax toogee di wax ngëneelu yonent bi baax na ndax daañ ko sopp waaye su ñu waxee jàngaleem ëllëg yàlla duñu duma oustaz dama dul d'accord ñi jël ab biche ñun daayira sopp sëñ Babacar waaw dugg ci oto bi man ma toog nii ab coro toog nii kële toog na le kële toog na le donte sequñ dara alquran wala taqarabu la wax bala balaa imagine toi ñi xëy maag yow départ fii suba teel jógee Gambie wala jógee Mali wala jógee Mauritanie wala jógee dakaar ba tiwaawan ñiy waxtaan maag yow jëlanti numéro te say amul xisbatan la Maodo wax moo tax ma bëggoon ñu organiser jigéen ñi ca ginnaaw góor ña ca kanam ndax loolu mooy diine su ñu ñëwee ba ci dal bi nañu organiser dal yi su dee étage la jigéen ñi ca kaw góor ñi ci suuf ñi teg ay nit ñoo xam ne ku yéeg ci kaw nañ xam kan la ndax su ñu dajee Tiwaawan def fi lu neexul yàlla bàkkaar bi Maodo du si mucc yàlla dina ko na ko aa ah, yaa woon Moustapha ak Oustaz Maodo Fall de ñu toog mu ne ko ba ñëwee lii lañ def Maodo nag waxoon naa leen suñ ñëwee buñ ko def te fekkuñ ma fa yàlla lam yakun naxwal xaraami naxwal xaraami uduulu dama ko firee nag ca jamono corona ba waaw xam nga Tiwaawan dañoo arrêté gàmmu yi ma ne isa lam yakun naxwal xaraami uduulu su dee corona amul est-ce waaye am feebar déplacé wu dem Tiwaawoon wàlle ko fa Maodo santaane wu ko. déedéet moo tax xalifa bi yàlla na ko fi yàlla yàggal. jërëjëf Serigne Babacar Sy Mansour. tabaarakallaahu ñu delloo. jërëjëf euh, Oustaz Moustapha Cissé yaakaar na leer na naññe juddug yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci yi nga xam ni xew na nga xam ni ñun sunu ko xamee tey kenn rek moo tax ñu xam ko muy Seydil Hadj Malick ndax damay faral di wax ni boo toppee téere yi Seydil Hadji malik bind dafay mel ni danga ngaa fekke woon jamonoy yonent bi ndax ni la ko Alaaji Malick di décortiquer lee ba mu leer ci sa bopp wax la yi xew ra'at salaasata alaamin qad intasabat wax la li xew tazalzalat ustuwaanatul muluuki ka kaabatin salaasata ayaamin falam taqumi wax la li xew sariiru kullu malikin saara muntakisan bila xilaafin wa rabbil kaabatil xarami nga xam ni ñun taalibe yi amuñu fayu Maodo. xoolal daf ne wa innahu waaw fi rabiil awalin tasharat fi xubbihi waajifaatu shawqi li sadami loolu mooy lan daf ne wa innahu damiru sha'ni la mooy mbir mi ngeen di coow yéen ñëpp ñu ne ne fii rabiil awal weeru gàmmu la ndeysaan Maodo yàlla ko yàlla fay amiin gi ngeen bëgg a màggal weeru gàmmu la fii rabiil awal mu ne intasharat folatana lan mu ne waaje faatu shawq drapeau wu bëgg sayduna muhammad keñ lay feeñ mu ne fii xubbihi ca fukki fan yeeg ñaar allahu akbar bisu gàmmu gi fukki fan yeeg ñaar moo tax burdu yi ku mu neex ñëw ku mu neex toog <laughs> waaye daal fukki fan yeeg ñaar gàmmu si rek gàmmu si rek xolal léegi ñu ne ko Maodo lu waral gàmmu gi mu ne sururun ca nuuniya ba wa amun summa shahrun summa yawmun ataa fiihil huda qarnul quruuni ah. sururun mu ca aamun fii sururin mu dellu ca shahrun fii sururin mu moo tax ñun ñu amul jot te xaw a réere yenent bi ñoo ko wutal bis mais nit yàlla yi saa yu ñu xëyee gàmmu allahu akbar aamun at shahrun weer ba yawmun bés ba mu ne ataa fiihil huda qarnul quruuni ataa dikk na huda mooy sayduna muhammad fiihi ca at ma fiihi ca weer wa fiihi ca bis ba xarnul quruni ki nga xam ne mooy sangu-sang yi lu may wax xam nga ci dara ba léegi leerut ndax xabar gi ñëwagul wal xabarul jusul mutimul faida kallaahu barrun wal ayaadi shahida ñu ne ko Maodo la mu ne rabiun weer wa ñëw wasina fihi shahirun bés ba ñëw bi aamil fii li yowman baada nuuni at ma xolal <laughs> aamun. waaw suma shahrun. suma yawmun suma yawmun. sururun fii sururin. fii sururin rabiul awal. fina aamal fiili moo tax lafun wa nasrun muratabun am na lafun wa nasrun muakkasun am na lafun wa nasrun mushawasun. allahu akbar xolal Seydi Hadj Malick nee na at ma ñu ne amu ne mbégte la waaye lu mu ko tëjee waa idun nee na feet la. duuna ayaadil uyuun duuna bi maanaa fawqa. a ayaadul uyuuni moo kawe mboolem feet gu nit di feete dama naan soo amee doom anniversaire am jot nga dem jënd kado ñëw jox ko. dëgg la de ak di xaar kado. <laughs> ku ne estadiwul nga xuloo. dëgg la de ku ne suyetewul nga mer. Seydou El Hadj Malick nee na suyete kenn ko mérito mooy Seydouna Muhammad. allahu akbar. Hadj Modou. keroog ba yonent yàlla Muhammad juddoo. Mhm. salaay sallam ñu ne ah mu ne fu nit ñiy jaar jaaru fa. fu jaar ca jumboox ba moom yonent bi sallallahu alayhi wa keroog ba yaayam mu yaay Amina yëgee matu Moustapha daa wax ak moom bi Amina yëgee matu yonent bi dafa wax ak moom yonent wax ak moom te lu dal jigéen ñi bàyyi ba guddi mu daana la dalu ko bi mu desee fukki fan ak ñaar la yàlla yebal ab malaaka ñii ne Jibril la ñii ne keneen la waaw malaaka ba moo yor genre laaf laaf bi dañ ko kilimati sedd guy mu am as ndox ndekete ca tas niim la jógee ca aljanna mu ne ko bàyyil ban soxna ci tëdd jigéen su ëmbee su tëddee day bañ lu ko déranger mu ne ko bum la gis bum la yëg mu daldi jël laaf bi raay ko ci biir bi naaw dem asamaan Amina nee na dafa mel ni dañoo ñoddi métti ga mu doon yëg ca biiram xam nga loolu kañ la keroog ba weer wi teroo allahu fukki fan yëpp nag. man man di daw man man daal man daal man damaa jommi man. cheetetetetetet. oustaz mu man di tëddi defaan xam nga jigéen ju ëmb moom benn côté rek lay tëddee. waaw Amina nu ko neex tëddee. dem bay insister est-ce que moom biiram la fa nekkoon génnut. mu na ko maa ngi fi yaay. allahu akbar. wax ko heure bu muy juddu ak fan bu muy juddu moo tax ba bés ba jotee amina moo dox ba ca maam Chafa waqad ata qawmaha Chafa u shafiyatan su dóora man mu nixu tawfiqa fil qidami moo ñëw na ko meer mu naa mu na ko damay matu te heure boobu xam naa day fekk ngay nelaw <laughs> mu ne ko d'accord mu ne ko waaye su heure ba jotee dinaa ñëw sa kër wala nga ñëw sama kër meer ba keroog yaa danaam ibna awfu keroog ca kër maam amina la fanaan bi ñu demee ba heure ba jot <coughs> mu daal di ñëw pour dimbale ndaw si ndaw si daal di jumbox bi xar gis nga maam Chafa leer ga mu gis gis nga li may bëgg wax yëpp moo ko nettali te jigéen la ndekete Amina seede la doon wut waaye wutul ku ko dimbale. allahu akbar xaj maal yàlla ñu ko yàlla fayal waqat ata nee na dikkee na Chafa u mooy faa'il ji xaw ma ay nitam mooy maf'ul ji. su duura man mu ni tawfiqa fil xidami nee na lii may bëgg wax ki ñu ko netti li bégoo xolaatal sa xol su duura man mu ni tawfiqa gis nga baatu tawfiq la jëfandikoo ndax nga nangu màggal guddig yonent bi nangu ne Moustapha la gën tawfiqul ilaahi la ah wakaana masruran nee ne maam Chafa bi mu jëlee lanseet bi pour dagg jumboox bi xam nga fa la Moustapha jaar moo tax mu dagg boppam moo tax mu dagg boppam. allahu bi mu génnee xale su juddoo jumbox bi day gudd. mu dog pour mu dogg pour dagg ko. leeration bi tax na mënul gis maa ngi lay wax lu yéeme sëriñ Maodo yàlla nañu ko yàlla fay mu laal loxo bi gis na dara nekku fa waaye loxo bu mu laal la foon xetuk parfum gu ngay xëñ amul ci jamono mais ku jógee ci biir ku ne xam na ne deret ngay takk ak salte waaw Moustapha ñëw indiwaale parfum gis nga bi mu waddee dafa sujjóot teg jëbi ci suuf si gi teen tàllal baaram ba Maodo ne yuumi sababata miqbaadan asaabiahu moo tax kuy saabalee nii yontu daawul def noonu nii mooy baadan asaabiahu mislal musabbihi yarnul ulwa waaw léegi lii lii soo téenee ci kaw ban njëriñ la am ndekete moom xoolul asamaan xoolul néeg bi mais mu ngay xool sunu borom ma nekk ca kaw arasham ndax istawa alal arsh yàlla na ko ku judd defaan yow nga judd bàyyi ma xel di ma bàkk ci subhaanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah kon balaa ngaa dugg bàmmeel faaw nga ñëw ci kaw mata subhaana lasi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa kooku rañaan gala waaye miraaj ba yaa ngi koy jàngee ci wa najmi iza hawa ma dalla saahibukum wa ma xawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa ila wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bi lufaqil ala waxut asfal moo de ne asra bihillaahu tashrifan li mignatihi hatta ra'a ma ra'a min ayyihil jusumi Moustapha juddu ñi toog dégg ab bruit bu rëy ñi xool seen pale ba na muy daanoo ma tamal la kee rek xijaab amul sëñ xam naa yaa dañu ko yàlla lu waay xool gis ko lu waay xool gis ko pale ba nag na mu daaw noo dañu wax ne set étage la woon kaati moo daanu <laughs> bàyyi trois yi mbooleem buur boo xam ne doo gëm yàlla ba keroog ngay dugg bàmmeel loolu nañ koy cité waqad talaqat wuxuushul xaafiqayni kama sawaakinul bahri qad laqat min anaam waaw sariiru kulli malikin saara muntakisan bila xilaafin najaashi bokku ca dëgg la de <laughs> mais pourquoi najaashi bokku ci dafa bëggoon sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal mahru xayru safiyin ramlatin adadan min addarahimi sirrun xayru muktatimi Maodo nee na yéen ci àll muhammad soxna bu mos a takk juróomi téeméeri dërëm la ko jox ca jamono ja ba mu des ñaar kenn ki mooy ramlatu bintu abi sufyaan dafa ànd ak ubaydullahi ñi daal di dem gàddaa yi ndax mooy jëkkëram fu sa jëkkër nekk am nga duraa nekk fa ñi dem jëkkër ji génn ci dina fekk ñoo ngi Éthiopie ñi bind leetar na ko ubaydullahi murtat na te yéefar daganul muy takk jullit wala tunkixul mushrikaati xatta yumin na wala am wala ammatun muminatun xayrun min musrikatin fële mu ne wala abdun muminun xayrun min muminin wala waajabakum fële mu ne wala waajabatkum ndaw si eddawu bi mu peree yonentu bañ ndaw si misère jàpp ko mu wala mu génn ci diine mais du nopp ko de <laughs> sallallahu yonentu kenn la nopp takk ko <laughs> wa ma tazawaja bikran gayriha walisa kaanat ahabba bila shakkin wala tuhami billahi keneen ku ne rek sa jëkkër la yónni xare mu dee mu bañ ga murtat wala sa xol jeex mu jël la mu daal di yónne ñi takk sëy bi mu ne can gi ñaata la najaasi yi ko maakay joxe Maodo ne wal mahru taa u danaa niirin tusaaqu laha minan najaasi yi lu ci teg xibbi shafii an kooku lal mën naa daanu ci kawam. déedéet. nee na can ga juróomi ñeenti téeméeri dinaar la jël jox ko ndaw si ne ko Moustapha moo ko canee ñu ne ko Maodo ku def lii mu ne an na jaashi comme Sénégal nga ne président. waaw kan mu ne xibbi Shafii Nasami ki nga xam ne moo sopp yonent bi ba bam faatoo Éthiopie la nekk Moustapha nekk diina jullee ko soo demee ci xalil daganul Oustaz Modou Fall nga nekk Tiwaawan sa soppe nekk Mauritanie faatu. loo ko bëgg-bëgg amoo droit jullee ko te demoo Mauritanie. waaw man nga toog fi nag ñaanal ko nee na kenn la ko yàlla may mu bokk ci xusuusiyaatam mooy Seydina Muhammad Madina la nekk jullee Najaasi yi moo tax ma ne la Najaasi yi laal daanuwul ci kawam ndax yàlla dafa namm ci moom hidaayatu nee na bi mu juddoo ñu xool Kisra gis pee bi daanu ñu xool buur yi nga xam ne ci yéefar la ñuy dee ku ci nekk lalaman ci kawam ndeketa lal bi la yàlla jox xel jël xeluk lal ba mu ñàkk xel ga jox ko buur ba loo yaakaar lal bi daa tëdd seen kaw rek ñi boo ko jug déedéet Maodo yàlla na ko yàlla fay ci Seydil Hadji Malick noonu la tëddee man de Maodo mii noonu la tëddee nekk lal lal bi tëdd ci kawam nekk ko ba bët set mu yeewu gis lal bi ne nekk comme sa lal bi daal ñi daal di boox lal ba njaboot gi ñëw gis na lal bi ci kawam la fanaan ñi puus lal ba lal ba daanu ma mu jóg xam nga buur ak rëy ga waaw am na ñoo xam ne keroog lañ xaru am na ñoo xam ne dañ fa jógee dem tabaarakallaahu ca yahuutu madina yee laajte lu xew leen guddik tey gii ak lu mën a xew yonent buy ñëw mujj jamono judd na mais lu ñu jaaxal ñun la waroon juddoo te gisuñu ko allahu akbar yàlla nëbbu lu dox seen diggante loolu ca judd ko la xew moo de ne yuumi sababata miqbaadan asaabiahu mislal musabbihi yarnul ulwa zahimami jalaala rabbi rafiin qaala xiina ata wa xiila sabaxa fi takbirihi al azam loolu may gis nga bee daf ne xaala bi daf ne xiila waaw xam nga daa ñëw fekk gars yi naan subhaanallaahi la doon wax moo da nee déedéet danoon ixtartu jalaala rabbi rafiin yéen addina ngeen di xëccoo ba man tànn naa yàlla bi mu faatoo dajeeg yàlla moo tax bi muy dund ko ànd ak moom dajeeg yàlla allahu akbar kooku mooy yuumi sababata miqbaadan asaabiahu Maodo ne nu ko gàmmukat yi di waxee ma xool bopp ba ma xool bopp ba waaw waaye war a suhu jaa amin yum nin yëg naa ne Moustapha boppam ba ak lu muy rafet-rafet ñi naa mu ne ci barke la ko yàlla bind bopp yonent bi waaw léegi nag barke googu nu ko seen almaali firee dafa yaatu xam nga luy bopp barke ba ca bopp ba mooy bëtam daan na gis loo xam ne beneen bët mënu koo gis soo demee ca Nuurul Anwaar daan na wax ne Moustapha daan na teen di gis arash daan na xool ci suuf di gis taxta sara daan na toog ne saaba yi maa ngi gis ni ngeen di ubbee ëllëg buntu ruum yi barke ba ca bopp ba moo tax bët ba mën a gis loolu xoolal mhm. Maodo nee ne barke ba ca bopp ba moo tax nopp bi daan na dégg coowal asamaan atiitu samaa kaana yasmuuhu aw qaala atat bi sa haddis wala mhm. daan na toog ne woo pop pop ñu ne ko lu xaw mu ne asamaan a ngi xàq ngir bëgg a daanu ñu ne ko lu tax mu ne amul benn chebre chebre mooy lii te malaaka tegul fa ndëggum di jaamu yàlla allahu akbar xaqu asamaan nga toog ci suuf di ko dégg te diggante suuf ak asamaan waaw doxub juróomi téeméeri at la mhm. oustaz Modou Fall dañuy wax ne li ci jéeri ji ci ay mbindeef nit ak ay rab mooy asakay lu ci biir géej xolal yàlla de <laughs> lu ci biir géej kanaa bare na ah? mooy asakali ci asamaanu benneel ci ay malaaka ay mbindeefu yàlla asamaan satire na de as moo tax mu xala xàq asamaan bii la ci nekk la ca ñaareel bii asakala ci bu ñaareel ba ca ñetteel asakaam la ñetteel ñeenteel ba ca juróom-ñaareel soo boolee juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar lu ci nekk asaka la nekkee ci kaw arash soo boolee aras ak la ca nekk azaka la la ca kaw kursi yu yàlla ne wasia kursiyuhu samawaati wal ard moo tax wa maa yaalamu junuudu rabbika illaa hu Maodo nee na keroog ba Seydina Mouhamed juddoo banu saawate dañoo jël seeni pot pour dem tànqi seen géej gu ñu jàppee ne mooy yàlla gis nga arab dafa amoon ñu dof ñoom lu leen yàgg jëriñ rek ñu ne yàlla la bi ñu jëlee seen pot pour dem tànqi ndox naan sangu ñu yegg fekk géej ga ñiis géej ga ñiis ñi daal di jaaxle. waaw. waa Faris daw ca safara sax ndax fa lañ daan taalee pour togg pour jaaru pour def lépp bu ci nekk jaamu nañ ko ñetti junne at gëm ko gëm ko ne mooy seen yàlla loolu ñu tuddee majuusiya ñi xëy safara sa fay buusi na ka anna bil maa i maa bi naari min daramin ka anna bi naari maa bi naa i min min balalin mhm. su ko defee loolu mu nga xewee ci guddi tey gi guddi gii ñuy waajal muy ginnaaw suba incha allahu moo tax guddi la goo xam ne lu ci xew bokkul ak lu xew ci mboolem bisi bokk na ci dañuy wax ne njanaaw yi xam nga xar dajeeg bay garaawut waaw mais dañuy xool ñaar ñu gën a jubóowoo di muy muus ak janax keroog ñoo bokk reer <laughs> jën ju gën a mag ci jën yi ak bu gën a ndaw ci jën yi keroog ñoo saafuwante bu ne wax sa morom dégg xam nga li ñu doon waxante. ni an lakk. bis maa ngi lay ndokkeel. maa ngi lay ndokkeel xam nga xam nga tey su ma ñëwee na maa ngi lay ndokkeel nga yëgal ma ngénte du ma ne maa ngi leen ndokkeel si xale bi. ndax yëg ngénte gaa tax ma ne la maa ngi lay ndokkeel. moo tax ba yonentu juddoo mala yi ñoo ko njëkk a nit ñi Maodo ne waqat talaaxat. wuxuushul xaafiqayni kama sawaakinul baxri xat laaqat minan noami nee ne ña nekk ci géej dajee nañ saafuwante ñu nekk ci jéeri ji daje dajee wante ba léegi ñun lu tax ñu dajee lu tey ñu dajee saafuwante segam ñooña ñooy bëgg ci juddug yonent bi kay sallallahu alayhi wa nit ñu yàlla jox xel lu tey ñi wante benn arab dafa wax ne abu lahab xam nga ko ama abu lahabin tabban ajabaliza tabbat yada nazalat mazala saasa demee gis nga xilaas damay wax rek ne matière yëpp ci ba ci sababu nusulu laay ak xadis yi moo doon trouvé na ko ci biir xilaas <laughs> keroog ba yonentu juddoo ummu ayman mi nga xam ne moom la wax ne ummu aymanu ummi baada ummi ah. dafa daw na ko abu lahab mu ne ko am ah, mu ne ko démb ci fajar ci guddi mu ne am ah, mu ne ko sa doomu sa jabaru doo rakk ja frère ba am na doom mu ne ko lu mu am mu ne góor te gis nga arab doom jigéen daf ko xeeboon nekk nekk góor nag te jigéen su nekkee ci kër jëkkëram gaañu dootul am noonu ci kër ga fekkee mu ngi ëmb ndax kuy fereer day ñaan mu am doom ñu protéger seen doomu mbokk wallaay ndeysaan donte jamono jaahil loolu moo amoon bi mu juddoo nag muy góor ñu kontaan ci nekk gum nekk góor gis nga bi mu ñëwee wax ko abu lahab lu muy kàccoore kàccoore daf na ko yow goreel naa la te yàlla tax ndax wax gi ma wax ne sama së sama sama doomu fere bi juddu na. li ma ko annoncé rek. goreel naa la goreel naa la. ndeysaan kon moo tax jour juddu gi lu ci waay financé xeeb lu ci waay finance Abu Lahab faatu mbokkam ma Abbas gis ko bi mu ko gisee mu ne ko waaw noo def ak yàlla mu ne ko lu muy teg mbindeef ci natt ci mbugal mu metti teg na ma ko léeg-léeg nga wax ko ñu ne la safara ubbeeguñ ko te wax nañ dëgg diw dee na mu ngi safara non ubbeeguñ buntu ba diw dee na mu ngi aljanna déedéet ubbeeguñ buntu ba aljana balaa ñu koy ubbi Moustapha daa dekk. sallallahu alayhi wa sallam Idrissa mu ngi biir aljana te daa war a génn mais bàmmeel barzaq dafa am dunduk aljana am dunduk safara Abu Lahab dafa nekk ci barzaq ya du dund dunduk safara. mu ne ko lu waay di teg ci mbugal rek yàlla teg na ma mu ne ko waaye nag maa ngi lay sant di la dénk di kontaan ci lan mu ne ko altine bu jot yàlla woyafal sama mbugal waxul dañ de woyaf lu tax mooy bis bég gu ma bégoon ci juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak financé gu ma ci financé mooy goreel gu ma goreel jaam moo tax ndeysaan shaa'ir ba bam koy way daf ne iza kaana haza kaafirun jaa zammuhu wa tabat yadaahu fil jahimi muxallada ata annahu fi yawmil isnayni kaana aabidan tabaarakallaahu ñetti béy du neex ne waaw fekkee waa ji nga xam ne yéeféer la yàlla xas ko ci alquran jël saar ba teg ko ci taatu kër gi lu xale gàtt gàtt aliwa mën koo mokkal fekke moom la ñu wooyeefal mbugalam ndax bég gum bég ci yonent bi waaw fa kayfa oh. bi oustaz Modou Fall fa kayfa bi Mouhamadul Kabir su ko defee guddi la goo xam ne lu ci waay mën a profité na ko def xam ne ngëneel yu dul jeex la am oustaz guddi googu bokk na ci ay ngëneel wala ay histoire yi nga xam ne xew na ci guddi gi mhm. ci njàngaleem Seydil Hadji Malick mhm. maa ngi woon ci war a suuhu jaa min yumnin wa min ibarin usna wa ayna habibillahi min ratami mhm. sadrun wa qalbun fuaadun lil habibi min al ikhlaasi wa rahmatul uzma wa min rahami amee na nee na damaa toog ma gis benn drapeau ñi samp ko ci kaawa gi ma gestu gis drapeau ñi samp ko ca penk ma gestu gis drapeau ñi samp ko ci xarfu mais léegi Amina man naa toog néegam gis loolu déedéet Seydi Hadj Malick yàlla na ko yàlla fay Amina ne sama kaw lal laa toog gis kaaba gi ñi samp fa ab daraapo waaw ma xool penku gis ñi samp fa ak drapeau ma xool xarfu gis fa ñi samp fa ak daraapo mu fàttaliku gént ga Abdou Moutalib géntoon at Moutalib dafa gént benn garab garab gi sax di garab garabu leer branche yi dem ba bët asamaan yii dem ba penku yii dem ba sow mu gis benn xale bu rafet nekk ci kaw garab gi mu gis mbooloo mu bare di daw di yéeg ci garab gi moom mu seetlu ne saa yu bëgg a yéeg daanu gis benn waay bu téye sémmiñ pour gor garab gi mais mënu ko daane bi mu yeewee dem ci firikati gént yi laaj leen gént gi dañ na ko bégal fekkente ne nii nga ko waxee nii la amee la yuxrijanna ila la yuxrijanna allahu min ka man tabiat lahul xalaayiqu min jinnin wa min nasami mu ne ko garab ga mooy lislaam oustaz déglul bu baax Seydil Hadj Malick garab ga Abdou Mutalib bi gëntoon mu ne ko mooy lislaam dina dem ba penku dina dem ba sow ba sowu jant muy benn mu ne ko ki nga gis ca kaw muy liir mu naa ah, mu ne ko la yuxrijanna ilaahi min ka min ka googu minub ibtidaa i makaan la ndax baid wa bayin wabtadi bi amkina bi min waqat tati fi bat il azmina loolu Ibn Malik wax mu ne ko kooku ngay génne nit jinne daañ ko topp moo tax nga jàng qul uxiya ilayya annahu istamaa nafarun min al jinni moo dene wa kaana lam yashcuran bil nazalat wa is fa naala al ilma kal alami mu ne ko nag ñi nga gis ñiy yéeg yow lu tax nga yéeg mënoo yéeg di daanu mooy doo fekkee lislaam ama samaani wafaatul jaddi zahanamin wa wa anu sharwaana zilkarami <laughs> jërëjëf oustaz waay. mu ne ko ñi nga gis ñi bëgg a gor garab ga xam nga léeg-léeg nga dégg ko ne la iblis la. waaw ah. déedéet mu ne ko mooy waa Quraysh moo doo ko firi de wa ajma al kullu lil itfaa ma alimu bi anna zalika nuurullahi fil qidami garab googu bi yonentu juddoo Seydi Hadj Malick moom bu amoon bu amoon bu amoon orange money moom wala wéev nga dugal foog ma laal ko dara tey oustaz yal na yàlla fay Sëñ Malick comme comme xale ba judd na mais oustaz yaa ngi fu neex jërëjëf comme xale bi judd na faaw mu am lu wan yaay ji gis nga kaaba ga mooy symbole l'islam qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i mhm. falanuwalliyannaka qiblatan fa walli wajhaka shatral masjidil harami yaani kaabatul musharrafa waxul ko jàkka ja de jàkka ja kenn du ko jublu dañ fay jullee mais wëlbatikul jàkkaarloog. kaaba ga xam nga lu tax. waaw mooy bu njëkk suñu daan julli baytul muqaddas leen daan jublu. waaw yahudi ne kii moo neex. bañal ñu suñu diine ba pare di si suñu xibla. yàlla ni ko changer position. Moustapha nag jaaxle xam ne ñii wax nañ dëgg muy teen rek. di rek ndax su amee lu ko métti rek yàlla day yebel jibril yàlla na ko gis naa la taqalluba wajhika. fi sama ak naree taqalluba fi sama yaa ngi teen rek. waaye nag ordre ñëw yaa ngi jeex a jaaxa rek yaa ngi jeex a jaaxa rek. mais ndigal ñëw na léegi bàyyil fa walli wajhaka shatral masjidil haram gis nga loolu symbole la la ñu sampoon ca digg Kaaba ga moo di lislaam drapeau ba xam nga raat salasata alaamin xadin tasabat ma fii kaabatin mashriqin wal maghribi gis nga irtasimi googu la lañu war a leeral ñetti drapeau yi moom la Maodo ne na ko topp irtasimi mooy toppal ñetti drapeau yi waa léegi su la ko waxee te xamoo lan la noo koy toppee waa dana garaaw de parce que da nga naan lii drapeau la rek yuy fëlate wu noonu jërëjëf ndekete bu njëkk bi moo di l'islam moom la yàlla samp ca kaaba ga moo ne ci digg bi ci digg bi ba ca penku moo di liimaan hmm. ba ca xarfu moo di lixsaan allahu akbar moo tax ñay jëfandikoo lixsaan soo jubloo masharaq rek da ngay yaakaar ne nekkuñu si dara est que dégg bu baax. soo yemee ci lislaam kase yow da nga yaakaar ne lépp kaaba gi la soo si booleeg liimaan faaw nga jublu mashriq waaye nag soo si boolee lixsaan képp ku jublu mashriq da lay contour. dëgg la de. moo dene ne irtasimi moo tax nag soo boolee lislaam mu ne juróomi ponk la julli woor aje màkka beneen ba natt asaka ah. juróom ak tudd baatu seede yi nga wax liimaan mu ne la juróom benn la gëm yàlla gëm yonent yi gëm malaayika yi gëm téere gëm dekki gëm dogal nga wax lexsaan nag mu ne benn la an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa inna yaraak <laughs> gis nga mu ne ñett yi soo ko boolee ñu ne ah mu ne mooy diine yàlla ne inna diina inda allahi islam moom la yàlla jox yonent bi la alayhi wa sallam kon raat salaasata alaamin xadin tasabat fii kaabatin mashriqin wal maghribin lii la ci Seydi El Hadji Malick namm na ma kilifa yi baal ñu dem allahu akbar pour wax leen jàngale Seydi El Hadji Malick nee na keroog lii xew na mais toogaat na seen benn niir waaw toogaat na seen benn niir moo de ne maa fii fiihi min al garaibil xur ñu ne ko ah kooku na nga leeral ko mais moom nëbbu ko mii bii da nga leeral niir bu Aminatu gis gis ca la ko yéem mais ñun waa Sénégal faw ñu xam ko <coughs> moo de nee na kashfa sirri laa tasu bi la Amina gis waaw la Amina gis ca niir wa ñu ne ah ñu ne ko faaw nga leeral ñu ko mu ne kashfa sirri laa tasu bi nee na bu ko sàkku te loolu secret la boo xam ne du ñëpp ko war a xam kenn du ko nettali kenn du ko nettali ne ko guddi ga la ca xew Seydil Hadji Malick mu ne guddi googu même guddi gi ñu ne ah mu ne yàlla si boppam dafa yebal malayka yi malayka yi daal di wàcc ci jaww ji di wër waqat tawaalat bushiral hawaatifi gis nga de bushiral hawaatif mooy dangay toog dégg benn wax yow mu tëdd salal mu ne jogal te nabbahu an na nuural xatmi an nuural xatmi laylakumu laylakumu xalla fii xiimatin min atharil xiyami soo jógee lay def mu ne ana atiru baxiru xayral buxuuri xayral buxuuri wa afrisu sajaadaati takriman takriman alal xusami ñaari bayit yi ci la Maodo leeral gàmmu te nabbahu moom kuy nelaw bokko <laughs> anna nooral xat mi laylakumu xat xallat nee na guddi gii guddi gàmm ñu ne ah mu ne leeru ka mottul yonent xam nga lépp liñ naan gis nga dernier bruit xamul ta ñëpp di ñëw. waaw soo ko defee ti déwee na. dëgg la de. <laughs> benn dag naan subaa ngi ñëw naa bàyyi ba suba. benn tëjtalu burdu ma am. soo ko defee ti déwén la Maodo na yonent bii na ñu naan mu ne guddi gi ñu naan mu ne dootul amaat yonentu su ñëwee beneen yonentu dootul ñëwaat kon gaawal bokk si ñu gëm kii ndax soo gëmul Muhammad dootoo gëm yonentu. yonent moom jeex na jeex na. qad xalla fii xiimatin min atxaril xiyami balaa xale jëfandikoo dafa am lu ñu tuddee dafa am lu ñu tuddee majaaz am lu ñu tuddee istiaaratu mooy lay firi la leen nga àbbal ko firi jox ko lii xayma jigéen amul droit daan génn ci xaymaam lu dul farata mm-hmm. moo tax waqar na fii wala tabaraj na tabarujal jaahiliyati mm-hmm. luulee mm-hmm. jigéen sax gu muy sax ci xayma bañ a génn dafa ndiroog doom sax gu muy sax ci biir yaayam nee na nag léegi comme xale bi tey la wàcc ci biiru yaay ji bu leen xaar ba mu judd ngeen doog a gàmmu dafa dafa dugg ci biiru yaay rek Maodo ne jóg leen ñu jóg ni ñuy def mu ne ana atiru mhm. na ngeen laal parfum ban parfum la Modou. dëgg la de. baxiru na ngeen taal cuuraay ban cuuraay la. xayral bu xayral buxuuri mais xayral buxuuri moom mooy ban. su ma salaatu. wa taslimu yafuqu ala miskin miskin mu ne <laughs> wa baxiru mu ne wa randin allahu akbar ala zil fadli wal qadami gis nga moo tax téeréem bii al yàlla na ko yàlla fay fële dafa ubbi julli ci yonent bi ñi baal ma rek xaj moodu mhm. ndax ñuy seetaan xaw na bari mhm. te sëriñ xaj maalim bindem naqaree gis nga def ne alhamdulillah zil ijaadi wal qidami waaw mu dinaa bi wujudil badri zil qadami su ma salaatu wa taslimun yafuqu ala miskin gis nga deuxième bayit la indil problème Sénégal misk xam nga ne oustaz ku la ko jox doo ko def ci sa jasner bi déedéet day niin de <laughs> day niin te du xeñ waaw léegi Maodo bi muy bind <laughs> dëgg la de bi muy bind mais xam ne parfum yu gën misk waaw man kay uddu yi li tax mu bàyyi fi uddu yi tamit uddu yu neex yi. yu ba pare di jël misk. waaw nga xam ne kon du misk gii la ci namu. Ah. misk miim 40 la. siin 300 la. keef 20 la muy 360. 360 mooy balluwaayu sharia ay wa innaha jaat ala sittina baada salaasin miatin tuftiina allahu akbar amma ala almunkiri ilmu ma bihi tadammanat shariatun fantabihi Maodo nee na yow mi weddi ñu ne ah mu ne daa teel de nga ne ko kañ laa sañ weddi mu ne soo ndar keppee sharia yi ñu ne ko déet sharia kay bii lañ ci xam mu ne déedéet ñetti téeméeri sharia ak juróom-benn fukk moom <laughs> sharia bu ne soo ko xoosee xam la ca dagan xam la ca xaraam man suuxaat ya mooy yi nga xam ne daganoon na démb te tey daganatul ah. xam naasix yi mooy yeleen remplacé tey ba mu jeex mu hamaat yeeg mu fasalaat yëpp nga ndar képp ko nit wax nga natt soo nattee gisoo ko ci yooyu nga doog wax na ko ànduma ak yow waaye kii génn wax rek nga ne dafa daanu ba pare nit ñi dañoo yàkkamti ci fësal ku daanu. te boo maîtriser wu lii waroo corriger. waroo corriger. oustaz lii war nga kaa wax de. Maodo jël misk dugal ko ci téere bi nga naan ay julli gu mel ni misk ndaw lu tuuti. dëgg de. warandin ala miskin la wax teg ci warand rand gàncax la mhm. arab yi dañ daan ko jël daan ko dugal seen néegi saalum saalum yi daan ko roof seen sàkket yi pour xet gi Maodo nag wax dëgg yàlla taslim moom ëpp na rand ndekete raa deux cent la ay nun soixante-dix la rand naka la nuun cinquante la del quatre la muy deux cent cinquante quatre nga pilis ci xaraf yi ñetti xaraf la muy deux cent cinquante sept moo jàpp nuurun nun 50 la waaw 6 la ah muy 200 muy 256 rand ran 200 la nuun 50 50 del 4 nga dolli ci xaraf mu nekk 250 56 mu ne nuurun min an nuuri qad awdaatahu xikaman tafiidu faydan a al axlaaqi yàlla fële mu ne wa innahu is araada allahu nashatana abaana min nuurihi waaje ne ne tijaan foo ko gis day leer mën na ko leer ya Maodo bindaa bari nuurun min an nuuri qad awdatahu xikaman tafiidu faydan ala al axlaaqi yallaahu nuurun ahaata bihi anwaaru xaajibatan an alxaqiqati kulla alxalqi yallaahu nuurun mubiinun atan nuuran mubiina atliin shaadil ibaadi jamii alxalqi yallaahu fële mu ne wa innahu is araada allaahu nashatana abaana min nuurihi nuura nabil alami sëñ Babacar ne nuurul habibi nuuru nabiyi habibillahi safwatihi min nuuri rabbin bila raybin wala tuhami moo tax mu ne wala tara ahadan min nahlihi abadan illa wasimaahu fi xusnin wa tazyini ndax sayduna muhammad la ñu jàngal seen njaboot ñu roy ko topp ko sopp ko te roy koo roy topp ko sopp ko di moom te yonantu daa fees della ki ay leer kon wa rand <laughs> oustaz jël rand nga xam ne balluwaayu sharia yi du lu ñuy jàng ci téere yàlla dogal na alhamdulilah ñi ngi yor majalis fële ca daara ja jàngale fànn yi ñuy wax yëpp am na ñu koy jàng ca daara ja yu bare waaye xam nañ ne nag dëgg dëgg juróom-benn téeméer juróom ñetti téeméer ak juróom-benn fukki yi seen xajmaal yi wax ah nekku ci téere yi. nekku ci de nekku ci moom. nekkul ci téere yi jàng ko sax nag dafay xajul. moo tax mu jël xaju fi mu jël rand teg. cey Seydil Hadj Malick na leer rek leer rek kay tax nga dégg ko te leer googu soo weddee mag ñi doo ko am. boo weddee mag ñi doo am leer gi. leer guy tax nga maîtriser soixante trois cent soixante charia yi ah déedéet gis nga misk mu jër randi topp ci ala zil xadami ala zil fadli wal xadami ne wa alihil muhtadinal xiiratil kurama al mutami siiratil muxtaari wal xadami ne maa arada raadu wal warqa u tanxibu min hadiliha wa jara damun min al qalami gis nga bayit boobu nee naa xilaas moo ci gën a yéeme daf ne maa araada raadu julli gi lay wax distance yam ko wutal na feeg malaaka mu ngi dënn nañ malaaka bi raadu la tudd ñu ne déedéet feeg dënn moo ngi yëngu allahu akbar xalal julli gi dellu asamaan waaw wal warqaa u tan xibu min nee na feeg picc moo ngi sab julli gi dellu ci jaww ji wa jaraa damun min al qalami julli gi dellu ci suuf xolal ñetti yi moo am jaww ji kaw waaw Maodo julli ci xilaas mu yóbbu ñett mu tënk ko ci benn bayit gis nga wajaraa damun oustaz xoolal damu del 4 la waaw mim la aynun 70 la muy 114 di samadu di jaamiu samadu 104 la waaw muy jaamiu waaye en même temps muy saari alquran yi 114 na la 114 yooyu balluwaayu charia yële yëpp ustaas mu ngi ci biir alquran waaye pour nga génne ko ci alquran faaw nga am leer gula la mag ñi di jox pour nga mën ko génne. allahu akbar kon gis nga salaatu gum def ci xilaas rek dugal na ci njàngale moo xam ne wax ga mu waxoon ne yaa xaa'isal bahri lil asdaafi nee naa foofu sori na waaye dafa ubbi rek xam ne lii mënoo dem Égypte jàng ko fa. mënoo dem Mauritanie nañ ma baal jàng ko fa. mënoo dem Gambie pour ma bañ a tooñ jàng ko fa waaye mënoo nekk sax Sénégal te ñëwoo ci xadaraam siire lay jàngale de. waaw di ay masala yoo xam ne xolal daf ne uyuunu larwaaxi min nuuril hudan bajasat fa innahu jinsu laala. maadinu sutuni maadinu sutuni jinsu laala ban téere nga koy fekk. amul de. nee na sellug ruux yi mooy yonent yi. ñoom ñëpp dañoo génnee ci ruuxu Seydina Muhammad ne innahu jinsul aala moom yonent bi mooy xeet bu kawe ba ndekete ko mu ngi bàyyi xel mu takkalimuuna yi mooy waa mantiq ndax ñetti jins moo am ustaas dafa am jinsul xarib am jinsul baid am jinsul mutawassit waaye borom laxdar yi borom borom sulamul mu raw naq ba mu koy wéy daf ne wal kulliyaatu xamsatun duna intiqaas jinsun wa faslun aradun nawun waqaas wa awalu salaasatin bila shatat jinsu qaribun aw baidun aw wasat wasat la jëfandikoo waaye mutawasit la ndax way bi mhm. ñu ne jinsul qarib mooy lan mu ne mooy jinsu saafil jinsul saafil mooy lan mooy maa laa fawqu maa maa fawquhu jinsun maa taxtuhu jinsun wala fawquhu jinsun suñ waxee jinsul saafil mooy loo xam ne ay ajinaas mu ngi ci suufam mhm. waaye nag dara nekkul suufam waaye nag am na lu ko tiim suñ waxee jinsul aali ñii di ko tuddee jinsul aali moom mu tuddee ko jinsul baid nee na mooy loo xam ne lépp a ngi ci suufam ta dara tiimu ko. xoolal maa laa fawquhu jinsun wa taxtuhu ajnaas Maodo bàyyi fa jinsul baid bàyyi fa jinsul aali jël afaalu tafdil ne innahu jinsul aala pour sonal ñu. maadina sutuni. ne maadina ni pourtant xatu tafsir la ci jinsul aala. nee moom ñu ne ah mu ne li ngay gis ni yëpp ci ay leer ci mbaax ci Seydina Muhammad la jóge sallallahu alayhi wa sallam aywa jërëjëf oustaz Moustapha Cissé mu mel ni ñu ngi ñuy signalé ni ñu ngi waaj a tàmbali burdu bi mbokk yi ñu ngi fii ci Tiwaawoon ñu ngi fii ci dëkku Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhu xam ngeen ni tey mooy dernier burdu bi def nañ ko at yu bëree bëri yàlla nañ ko fekkee déwén def ko téeméeri at ci daraja yonent bi nga xam ni moo tax tey nit ñi jóge fu nekk ci àddina bi waa diaspora bi ñëw nañu waa réew mi ñëw nañu ngir lan taataan guddi gu sell gi nga xam ni mooy guddik Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam oustaz Moustapha la ñu dalaloon doon waxtaanee yonent bi ak Seydil Hadj Malick mu indi ci tàmbali waxtaanam bunt bi nu war a jàng tey leeral yi nga xam ni moom la imaamul Busra yu indi mu mel ni téléspectateur yu télévision Futurs Médias ñi nekk bitim réew nekk ci diaspora bi ñoom ñëpp am nañu mbégte ma bàyyi la nga tàggatoo mais en même temps nga joxe sa numéro ndax am na ñoo xam ni ñu ngi laaj sa numéro bëgg yow kóllëre am ñoo xam ni tooyal nga seen xol ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydil Hadj bëgg nañu laa jot ma bàyyi la nga tàggatoo joxe waale sa numéro téléphone Oustaz Moustapha Cissé waaw tabaarakallaa Oustaz ñoo ngi sant yàlla ndax tàmbali yomb na. tàmbali sax dama naan yombul. Mhm. waaye li muy jafe-jafe mottalee ko gën a jafe. Mhm. ñu sant yàlla ba ñu mottalee ci jàmm. oustaz sant gi nag ma di la ci jiital. Mhm. ginnaaw ba ma sant yàlla abdi lam yashkur ni isa lam yashkur man ajaraytu ni'mati ala yaday ñëpp a ngi wër sa numéro di la woo pour nga toog woo ma. na ma kaay ma dalal la loolu rëy la ci man oustaz. jërëjëf waaw te it dalaloo ñu ba pare fas sa kanam. déedéet ndax borom xam-xam suy xotteeku rek am na ku ko téyel. te ñun noonu la ñuy waxtaanee tabaarakallaahu ñi ngi lay ëmbal cofeel lool di la ñaanal yàlla gën la sàmm yàlla gën la yëkkati di ñaanal tabaarakallaahu télé bi di Fitri Media yàlla gën ko yëkkati di nuyu tabaarakallaahu ñi si liggéey ñëpp waaye nga may ma ma nuyu sama sama sama xalifa mhm. Cheikh Seyd Mahamadinil Kabir waaw tabaarakallaahu agsi na léegi mën na ko baal ma rek